ak Souleymane Teliko mi jiite magistrat yu Sénégal Serigne Mbaye Sy Mansour ak Serigne Mountakha Mbacké Bassirou ak seen taxawaay ci lu jëm ci woppi coronavirus ak Monseigneur Benjamin Ndiaye yéen kaay gi mu ñu xamal lan ñu ci liste bi Edouard Mendy góolub Sénégal bi nga xam ne jamono ji mooy tëj Chelsea maa ngi si ak Aliou Cissé ak Ousmane Sonko njiitul Pastef Aminata Touré mi nga xam ne moo nekkoon conseil économique social environnemental ak ko fa wuutu di Idrissa Seck ak Sadio Mané doomu bi nga xam ne jamono ji mooy toj Liverpool Seynabou Diouf di ab commandant militant bu ñu ràññee lool ci police su Sénégal yéen kaay gi ba tey mu ñu xamal ñu président Mbagnick Diop mi nga xam ne moo jiite MEDES ak groupe promo consulting ma ngi ci liste bi ndax groupe promo consulting moo organiser ñaari événement yi gën a rëy ci réew mi te njiit réew mi di président Macky Sall présidé ko bi si njëkk bokk na ci salon international de l'artisanat de Dakar beneen bi di forum du numérique ñu boole ko ak grand prix du chef de l'État pour l'innovation numérique ba tey ñu élevé ko rang de grand officier de l'ordre national du Lion ba tey journal xamal ñu ci liste bi Seydi Gassama maître Assane Dioma Ndiaye bii di ñoo ngi ci waaye li duuf si nag wi xëjul si cin li yéen a kaay gii di Le Quotidien ñu xëy fekk fa docteur Abdoulaye Bousso muy yedd yenn ci ay médecin ndax nee na am na médecin yoo xamante ni nit day feebar ba tàggoo ak sagom ba du mën a wax ñëw ñu koy laaj xaalis te loolee yéenawul maanaa xel nanguwu ko yéen a kaay gii di Vox Populi nee na bi tax na baar yi ak boîte de nuit yi salle de spectacle di koy tëcc yéen a kaay gii di la sax xëy ñu tàggee maire bu Ross Béthio nee na coronavirus moo kaay gi di réew mi quotidien nee na maire bu Ross Béthio Amadou Bekay Diop la tudd moo nekkoon directeur des équipements scolaires ci ministère bi ñu dénk njàng mu digg doomu mi levée du corps bi tey jii la ci hôpital CTO yéen a kaay gi di laas Sud Quotidien ñu xëy fekk fa Omar Gueye mi nga xam ne moom lañ dénk wàllum collectivité territoriale daat nay wax ne am na ay ville yoo xam ne war nañu ko supprimer bu si mel ni ville bu Dakar bu Pikine bu Guédiawaye bu Rufisque bu Thiès yéen a kaay gi nee na bu ñu supprimer ville bu Dakar bu mu bett kenn ndax loolee muy bëgg-bëggu Omar Gueye yéen a ñu xëy fekk fa Barthélémy Dias nee na njiitu réew mi di président Macky dafa am jafe-jafe ak ville bu Ndakaaru ndax dem na ay élection ba tàyyi munu koo gañe te cinquante milliards yi nga xam ne moom la ñuy sédd ville bu Ndakaaru la président Macky Sall bëgg a jëfandikoo Barthélémy Dias nee na trop c'est trop Macky Sall li ko askanu Sénégal may moo bëri te nag askanu Sénégal ñoo wër te bàyyi Macky Sall mu nekk ci réew mi lu ko neex def ndax pesum kanam borom ma koy fajal boppam te fu la mooy jaay Dakar yéen a kaay gi de Les la wala stratégie politique ndax jamono ñongo sa dialogue politique ba président Macky Sall jamono bi yéen na Pape bi waaye nag dialogue politique bi wërta loo ni dañ see war a sukkandiku ngir dil ci ndodd askan a kaay gi ñu xëy yoon ci réew mi loo xam ne ay rapport la te corps de contrôle yi def ko danañu ko jébbal yoon enquête yéen a xëy na wax ci lu jëm ci poste premier ministre bi nga xam ne Macky Sall dindi na ko fi waaye nag ay njuum tey neen la te Macky Sall xalaat na koo andiwaat ndax bëri na ay làmb took ay pëccaxoo kafuyaas yoo xamante ni am na ci ni réew mi di doxee ak fast track bi nga xam ne Macky Sall daf caa lajj yéen kaay gi di Dakar Times li mu gis mooy Macky Sall ma ngi ci pouvoir bi APR ñoo ngi ci opposition bi ndax ñi nga xam ne ba dara du dara ñoo doon jàppale Macky Sall ba mu nekk ci bopp réewum Sénégal ñoom ñëpp jamono ji mën na ñoo wax ne ñoo ci kujje gi ñoo ngi ci opposition bi Macky Sall ñu bees la tànn te coalition Benno Bokk Yaakaar soo muytuwulee ci tas la jëm yéen kaay gi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 Express.